Topu yalla ak top jamu yalla du ben top yalla na wour top jamu yalla wour bëgg yalla top jamu yalla wala de man di la gam bëggal yalla topal jamu yalla wala de fonk julle koor wour fonkal sa bok parce que yow ya de tasee jeg yalla julli du ko fekke koor du ko fekkee nattaas ko du ko fekke yalla ko wax ah kullu man fani lepp dana fad kon julli du dem koor du dem natt asaka du dem jang alquran du dem sa jëmm ji du dem dara du dem yow ak yalla la الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسا مبكي جلدي يا كناني في جرت كومنتير تي لينيو ديغ واي بن تاخاو سيتلو تي واخ ني لي مصيبه لا اي فن لا تني كي موم سي بوبام دا فا ويدي وات بوبام بو ني جيلي رك مثلا لن تي واخام نانا يالا موني كل من عليها فان كيب كو نيك تي كاو سوف دينا مسا جيخ ولا دينا في مسا جوغي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سا بوروم دونغ دونغ دونغ دونغ دونغ مومو في دساندي لب لوي مينديف دينا في بايكو دينا مسا جيخ موم نانا كون كور جولي اساكا kon daanaka ñoom ay mbindeef lañu kon dinañ fi mësa jóge kon yow da nga existé yow jullit bi koor existé nekk ne julli existé nekk ne asaka existé nekk ne ñoom ay mbindeef lañu dinañ mësa jeex yow nga des fi nga dem dajé jax sa borom sachant que julli ge koor ge asaka yow ya koy jëf yow yow mi nit ki kon naka la julli mëna a yow nga des fi naka la koor mëna a yow nga des fi naka la asaka mëna yow nga des fi kon mom ci bopam ci ñàkk xam-xam ak si réeram li muy wax leeru ci boppam da dafa dafa amul te li muy naan bëgg yàlla topp jaamu yàlla naka la nit ki di mën a nekkee jaamu yàlla te duy jëf di jaamu yàlla loolu nan pour nit ki nekk jaamu yàlla il faut que muy justement jaamu yàlla jaamu yàlla moo tax ñu tuddee ko jaamu yàlla mënoo tudd jaamu yàlla te doo jaamu yàlla mënoo tudd naan katu café te fekk doo naan kafe pour ñu tuddee la naan ko taf kafe foog ngay jëf mbir mi foog ngay naan café pour ñu tuddee la jaamu yàlla foog ngay jëf jaamu yàlla te jaamu yàlla génnul julli asaka woor lépp loo def leneen nga wooy ko jaamu yàlla te doo jëf lii jaamoo ko yàlla kon nañ bokk dellu ci laa ilaha illallah téye ko ñett yi la su matee ci yow ñu nangu la mat na mat na bu wér ak ca bisimilah day wax ngir nga àggale ma ci yàlla. bopp yàlla lañ koy jox hmm? te loxoom yi mu téye yàlla santaane wu ko de yéen ñaar nii maanaam ni nga téye nekk loxoom yi doo leen eggandoo fa yàlla de te seytaane moom mun nga egg te te seytaane hmm, seytaane moom mun ngeen egg si moom ngeen dugg si këram bu baax a baax ngeen jëfe jëfam waaye nii nii nga téye loxoom moom te du sa koj armal. nga war ko jàppee taalibe di jàppee loxoom kooku moom du si yàlla ngeen jëme de yàlla yàlla nangul na yàlla islam nangul na yàlla laa ilaha illallah nangul na yàlla defal la ci ndam defal la ci barke kiraane defal la ci gudd fan ak wér ak jëriñu ci barke yaa rasulillah waaw ñun lay jox laa nee na ko yal na ko yàlla nangul yal na ko nangul ko laa ilaha illa nangul ci barke yaa rasulillah xam nga kan mooy rasulullah rasulullah mooy kii ngay nekk di foowe ay waxam mooy ki ngay nekk di foowe njàngaleem naan julli asaka woor aji màkk ay caaxaan walla du dëgg yonent bi loolu la jàngale ba bari nga bëgg a ñaan ci barkeem naka ngay ñaanee ci barkeem te gëmoo ko. ndax dégg loolu bu baax li ñu daa wax julli. terewuñ war terewuñ na taasam demak dem tere wun jangal quran dede way nag ku bëgg sa digganteeg la la yalla sant mom mu mat da nga téye deug moy lan moy islam ku bëgg matal islam da nga téye deug ku teggi islam na téye sharia mom da nga dem sëgg si géej topp yëngatu te yalla gis ngeen nak xam nga dof deug deug deug deug wessuul ñak xam wessuul ñak am xam-xam. parce que ñak yew moy jël sharia bu ko teunk ci julli wala ci asaka koor xam nga problème bi moy ki ñak xam moko dal parce que mom ndeysaan jàpp na ni sharia moy li ñu wowe al fiqh fiqh moy li lay jàngal asaka julli ajmak ak yoy loolu moy fiqh mais sharia yàlla dafa ni yonent bi ci biir alquranul karim thumma jacalnaaka ala shariatin min al amri fattabiaha yàlla dafa ni yonent bi ma topp ginnaaw biñ la defee yonent ma topp ginnaaw bi ñu la defee gën gi mbindéef ma topp ginnaaw bi ñu la xamloowee laa ilaha illa allah ma topp ginnaaw bi ñu wàcceewee ci yow alquran ma topp ginnaaw bi ñu la defee àdduna bi yëpp di la lëmbe subaak ngoon guddeeg bëccëg foo dégg ashhadu an laa ilaha illa nga dégg ashhadu an muhammadu rasulullah ba mel ni tur yàlla tur yonent bi ñoo musa dend yàlla ne ko ginnaw yoy yep maqam yi ma la defal martaba yi ma la defal ak xam xami xam yàlla yi deg alqurani sew-sew yi mboti yep yep yep yëpp li ma la defal noonu mo geul la beug sama minde fi jaal dëj nañ la jaal samp nañ la jaal saxlo nañ la ala shariatin ci sharia min al amri boobu loo xam ne ci suñu ndigal la bayiko ko yàlla yi mu si mu ne ko fattabiha na ko topp ولا تتبع تبول دغلو موك ولا تتبع بول توب موك ولا تتبع بول جيست موك اهواء بانيخو الذين غاغنغا خمني لا يعلمون خمونيو بابا نجاي لي لا يالله واخ يونتي بي تبير القران كون شريعه غان موي خولال لب لو خمني يالله واتيه نكو تي يونتي بي alquran bi yëpp yëpp yëpp ak i jëfam ak i atteem génn biti mbóoti yeeg xam-xam yi sirru yi lépp lépp lépp génnul sharia sharia du ak fiq bokkul fiq benn wàll la ci biir sharia comme ni nga xamee ni yeneen pàcc xam-xam yeneen fànni xam-xam yi noonu la nekk ay wàll si biir sharia ay pàcc si biir sharia tomb la fiq benn tomb la si biir sharia kon moom réer bi mu réer nag moo tax islam topp sharia te xamul ni l'islam sharia constitution bi yenu l'islam mhm. nga constitution mooy ensemble règle yeeg liñ li war a yooyu alquran constitution am charia. sharia kon sharia bokkul ak sharia bokkul ak woor <laughs> comprendre mais nag ku réer ba réeral ay nit. moo inna allaha la yansuru aswaarakum man yàlla xooluma seen. lii nga wax nii amul egg amul amul fenn ci arab inna allaha la yansuru aswaarakum loolu mooy lan yansuru amul yanzuru aswaarakum amul su suwar la wax yàlla suwari suwarikum la wax waxul aswaarakum yansuru loolu amul. yëngatu yi indi yansuru quluubakum julli du àgg ci xol ci yëngatu la yam. nattaasaka àggut ci xol ci yëngatu la yem dem màkka doo àgg ci xol ci yëngatu la yem jàng alquran àggut ci xol ci yëngatu lii mooy fen yi gën a màgg lii mooy kàcc yi gën a mag bu ne julli jàng alquran asaka eggul ci xol ci yëngatu la am na lu mu yégul am na lu mu xamul ne justement toog bi am li toog ci xol bi leer bi fa toog moom moo dicté cër ñu dem jëfe julli leer bi toog ci xol bi moom moo dicté ñu dem jëfe asaka leer bi toog ci xol bi moom moo dicté ñu dem aji makka bu amul woon leer bi